secrétaire général adjoint de la CNTS. Au sortir de, la la réunion, Absolument. Euh, comme vous le savez, le, ces temps derniers, nous avons beaucoup mobilisé la presse Effectivement, nous avons des problèmes, nous des problèmes, je devais dire, avec nos partenaires. Je pense que la configuration même de la, de la journée montre que nous sommes sortis satisfaits. À ma droite, nous avons l'employeur, particulièrement le directeur général de Tara, l'inspecteur du travail que vous connaissez, M. Tengay. Derrière moi, il y a M. Sissé qui représente aussi CRBC. Le patron de CRBC est derrière. À ma gauche, nous avons les travailleurs, particulièrement le doigt alpha qui représente euh, les travailleurs. Ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que nous sortons avec un protocole d'accord signé autour de 10 points. Ouais, 10 points ou 12 même. points qui avaient été l'objet d'une requête ici à l'inspection du travail. mais aussi, comme vous le savez, d'un préavis de grève sur le licenciement. Il faut reconnaître que la direction a fait de gros efforts. Ce protocole a été signé et tous les points, en tout cas, qui étaient consignés ont été acceptés par l'employeur. Les travailleurs, à partir d'aujourd'hui, dans les trois mois qui suivent, sous la direction de l'inspection régionale,

avec des, des CDD, de la prestation. Aujourd'hui, l'employeur qui est là avec nous, Tara Intérim, a accepté de se conformer à la réglementation et entièrement. Je ne rentre pas dans les détails du protocole parce que ce serait très fastidieux. Voilà, pour les licenciés, il y a deux groupes. Comme vous le savez, La semaine dernière, on s'est retrouvé devant la direction générale du travail, sous la présidence du directeur général d'ailleurs, avec l'employeur, M. Ba, ici présent, qui a accepté qu'on reprenne les 10 travailleurs. Ils sont 16, comme vous le savez. Mais reconnaissons aussi que les, les 6 sont mêlés à une certaine malversation. Ils ont la présomption d'innocence. Mais l'employeur, pour le moment, a mis devant aussi la question de confiance. Mhm. Il n'a pas dit non pour la reprise entièrement, mais il préfère aussi attendre complètement que la gendarmerie termine son rapport d'enquête. Mhm. Et il verra avec diligence et avec bienveillance d'ailleurs comment reprendre tout le monde. Mais en tout cas, les dix autres sont aujourd'hui repris donc les les licenciements sont annulés purement et simplement. waxe ko sorti ci réunion bi xëy na peut-être bañ fiy ñëw inspecteur moo ñu convoqué woon pour comme ni ñu ko xamee mooy ci protocole d'accord bi nga xamante ne xëy na pati fan yëpp ñu ngi ci doon wax mooy concernant yi nga xamante ne doon nañ ko def suñu plan de revendication mooy yi nga xamante ne lépp waroon nañ ko am ci autoroute bi ñu ngi woon ci biir protocole comme ni ko doyen waxee toog nañ waxtaan lu yàgg ñu trouver tamit ay terrain d'entente ci teewaayu inspecteur. ci teewaayu waa CRBC ak ci teewaayu tamit waa Daara ak collectif bi bi ñu toogee waxtaan juboo nañ ci ay kàddu mais dafa amoon loo xamante ne moo nekkoon sunu revendication point phare mooy concernant contrat yi ñu fi daan signé ak concernant tamit sunu collègue yi nga xamante ne dañ leen licencié licence euh, yàggul dara Daara jël ci ay engagement reprendre leen loolu tamit c'est à saluer ba pare tamit CRBC tamit engagé wu ci li ñu signé fii parce que li ñu signé fii tamit faut rappeler que ne bi tamit dafa toog te parce que inspecteur moo fi représenté état donc ñu jël ci engagement ku ci nekk ci ñun signer protocole bi pour dans les trois mois à venir lépp li nga xamante ne war nañ ko signé nañ ko ci protocole mooy concernant CDI conditions de travail ak passif bi nga xam ne jàll nañ dina nekk objet de discussion ci protocole bi ñoom engagé wu nañ ci respecter protocole boobu yëpp ba pare inspecteur mooy suivre loolu tamit n'oublions pas ça parce que inspecteur bi moom moo yor dossier bi loolu daal lañ ne woon dañ ko ñëw partager ak ba pare tamit xëy na après bu liy jàllee dinañ woote parce que tamit foog ñu woote waat voilà comme ni ñu woowee woon presse bi dinañ woote waat presse bi pour xoolaat tamit déroulement bi fan la toll voilà. merci beaucoup. je suis le directeur général de Kara Intérim. voilà au sortir de cette euh, euh, rencontre euh, nous avons eu euh, le plaisir de signer un protocole. Effectivement, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et comme l'a dit euh, M. Fall, euh, la plupart des points ont été respectés. ont été signés, notamment la signature des contrats à durée le passé social, euh, les équipements, les heures supplémentaires qui ont commencé à être Et je pense que ce qui est important, c'est que des dialogues permanents mm-hmm. vont être mis en place. Et le, plus, le point également le plus important, c'est-à-dire l'élection des délégués du personnel. Et ensemble, nous allons tout faire pour qu'on puisse vraiment restaurer la dignité du travailleur, elle est déjà là, mais c'est une perpétuelle, c'est un perpétuel recommencement. Mhm. Donc dans ce cas-là, nous sommes prêts, avec les employés et la direction, à mettre en place des process de relations permanentes et des attentes cordiales. En tout cas, je suis péagiste. voilà voilà merci merci voilà maa ngi nuyoo vraiment assistance bi yëpp suite vraiment à la rencontre bi ñuy def ak waa régional ak waa CNTS que je salue au passage ak euh, monsieur Sall et Père Alpha franchement euh, c'est vrai que c'est la première fois que ma ñëw si négociation yi mais rëccu naa ko sax lu ma ñëwul je pense que j'ai trouvé également des gens très responsables te leen rek laay wax sama rakk bu nekkoon ci péage bi li may def dinaa ko def si bu nekkul tamit li may def dinaa ko def maanaam ce sont des frères ce sont des sœurs pour moi lépp li nga xam te war naa ko mën a def pour seen situation amélioré wu dinaa ko def parce que du xaalis moom ma fi en fait parce que man am naa sama profession bopp mais dama bëgg ñëw pour apporter ma pierre à l'édification du donc ces gens-là il faut qu'on ñu considère comme ay vraiment ay mbokk ay sœur ay mag ay nawle surtout ay nawle parce que aussi man li may xalaat li ma sam papa doon wax Mohamed xëyal suba setul ba pare ba sëgul tu n'as rien à te reprocher loolu loolu laa bëgg def sàmm sama diggante ak yéen merci quand même. Hmm? Merci quand même. Bon, aujourd'hui, comme nous sommes réunis pour donner suite au problème que nous avons connu. Heureusement, quand le parti était très ouvert pour, conclure euh, le protocole. Mais quand c'est un protocole séparé, donc tout le monde n'a un protocole signé Donc les autres entreprises vont passer. Parce que c'est plus simple de travailler comme ça. Heureusement, quand même, le régional Tara a été très ouvert. Il tous les points de droit soumis au nombre de 10. À travers aussi, on fait beaucoup de concessions pour renoncer à quelques-uns délais de leurs droits. Tout ça donc pour avoir une solution définitive à ce problème-là. Un problème aussi, nous, sommes la partie garante du canton l'État. Donc, ils ont D'ici trois mois, mais avant, on va Dans trois mois aussi, on verra, on verra si tout le protocole a été respecté. C'est ça le, notre Nous sommes ni pour l'un ni pour l'autre. Nous sommes avec le droit. Et notre aussi mission, c'est en cela. Donc rassurez-vous, euh, aujourd'hui on a un bon protocole, mais aussi on va maintenant suivre l'exécution de ce protocole-là. Donc rendez-vous dans trois mois pour voir, Inch'Allah. bon tey jii dañoo tax dañu ñëwaat tey jii pour suivre li fi amoon mooy amoon na yëngu-yëngu si euh, autoroute bi Ila Touba boo amee nag ñun en tant que inspection du dañ ci dugg pour jéem a jubale euh, parti yi métti nag waaye ajo aju mu passé suñ sama sama kilifa directeur général du travail mu ngi remercier woon nañu ba ñu euh, jéem a jubale parti yi loo xam ne si si kiyam la si li li yoon may leen nag mu ñu ñëwaat Thiès pour yégale ko tey jii deux régional tra ñëw na pour la première fois toog travail toog moom def na effort yu bëri parce que fii dix points hmm. nangun lépp hmm. travail aussi def nañu effort loo xam ne ñoo ko moomoon aussi am ñoo xam ne dañ ko euh, dañ ko maye mayat kii taara am loo xam ne aussi nag day wees tey jii mooy bu jëmee ba seen kii euh, ba tëddee kaay nañ waxtaan encore pour yenn point ñu discuter daa ko xutal ñaan passif ñun nag suñu rôle mooy daal di gunge ñaari parti yi du ñu àttekat mais dañu gunge mooy bu ñu soxlaa ñëw na ñëw bu ñu wol ñu am na ci plan de candidat wax ko topp boo xam ne pour xool balaa trois mois yi danañ def temps bu aussi dinañ ko évaluer kon nag protocole mu ni am na mais tekkiwul ne mbir mi jeex na parce que exécution yi moo tax ñu naan protocole kon nag aussi ñu leen di gërëm ne sant xam daal euh, pour am na début solution ne ci espérons que parti yi ku nekk dana tenir kii am promesse am loolu lañ lay ñaan boo amee nag macha allah merci. merci.